asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñu ngi amal ci mbégte ak kontaante di leen ziar sur la TMS TV tele bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboo ko njëriñ euh, tey nag euh, ñu fas ne indi leen thème bu am solo euh, ci seen émission petit matin muy mariage mariage nag bu ngeen ko déggee ci olof mooy sëy daañu wax ci sëyu démb yi ak sëyu tey lan moo nekk. Euh, seen diggante euh, tey nag euh, plateau bi <coughs> ma di ci ànd ak Chérif di Sarata Aydara comme ni ñu amee habitude <coughs> di ànd ak moom di ci ànd ak aussi suñu sister ngoone ja xamee ngeen ko ci écran TMS TV ngoone nag fi mu ne nii dafa rejoindre TMS TV fas yéene nag ànd ak yéen ci ay émissions yu am solo mais également ci plateau yi. Euh, ci moom sax laay njëkkee euh, soxna Ngone euh, ñu ngi lay ziar di la di la dalal ci TMS TV. waaw doyen Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di tamit ñi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan TMS TV bi waaye du jiital ci nuyoo ki nga xam ne mooy kilifa gi la xalif général ku li médecine traditionnelle di monde di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam. di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay delloo ziar. jox la sa wàccuwaay nu mu gën a kawee rek waaye itam dangay daal di jox wàccuwaay ki nga xamante ni tey euh, daanaka mun naa ne suñu naataango la suñu naataango la euh, bis ni ki tey incha allah donc maa ngi koy jox wàccuwaayam waaye itam duñu fàtte la xalif général le pour les médecins traditionnels du monde dañ koy daal di jox wàccuwaayam duñ ko tay di wax waaye itam duñu fàtte nag euh, suñu collègues yi suñu doyen ñoom Saliou Samb ak ñoom Aziz ak ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk caméra euh, équipe bu CRA 221 waaye itam duñu fàtte suñu euh, benn xarit bi nga xamante ni tey moo tey oustaz Babacar Ba voilà oustaz Babacar di yëngu ci wàllum diine waaw voilà dina naa dinañu rejoindre sax incha allah donc ñu koy jox wàccuwaayam nu mu gën a kawee rek ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di profité nag di nuyu le xalif général mm-hmm. le roi médecine traditionnel du monde di Alaaji Thierno Moule Sow di aussi Eh, suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Camara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram mm-hmm. nuyu aussi eh, madame Sow laa ren aussi soxna Umu mm-hmm. di nuyu prince mu ne di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram sut a mun añ ci alors dañuy dugg ci waxtaan bi eh, Ngoné tey mariage dañu indi mm-hmm. dañu gis ni sëy yu baree bari dañuy sooxe ci at mi ñu génn rek nee nañ ci cinq mille mariages balaa at mee jeex quatre mille cinq cent yëpp dañuy divorcé alors mu mel ni sëy li koy sooxeel fi mu ne nii mooy jigéen ñi actuellement du ñu roy ci suñu yaay bu njëkk nga xam ni temps boobu dafa amoon ay valeur comme suñu papa yu amaan xam nga sëy ñu teg ko ci euh, yoonu siraati xal mu saxima mais teguñu ko woon ci am-am dañ ko tegoon ci ci diine l'islam euh, suñu papa ak yaay di jógo ko daanu ba kër gi naan alors gis nañ ni loolu amagul perte de valeur yooyu moo tax benn sëy yàggatu loolu lan lañ ko mën a expliquer. waaw Moustapha macha allah muy thème bi nga xam ne ne am na solo mooy mariage mariage yu démb ak mariage yu tey macha allah am na solo parce que boo xoolee mariage yu démb suñu papa yeeg suñu maam yi dañ doon sëy yàlla tax jiitaluñu matériel jiitaluñu dara te sëy yu bëri nag yépp da doon sos ku mbokk wala xaritoo ki nga xam ne dangaa toog ba war a mat am jabar ci góor ñu ne la sa kër nijaay wala demal sa kër bàjjan ñu taamul la takkal la ñëw indi la te jamono ji nag fi mu tool nii jamono ji day dox doxeetul noonu léegi xale yi dañuy génn gisanteeg seen bopp bëgganteel seen bopp ci mbedd mi mm. lu ci ëpp nag ci internet bi parce que à travers Facebook la ñuy xamante wala groupe WhatsApp yu demee noonu lu ci ëpp nag ñàkk xamante jukkoo da koy def parce que yu bëri léegi eh, par internet lañ koy xamee comme ni ñu koy waxee rek technologie bi dafa avancé xale yi léegi toogatuñu di xaar ku leen di may ñoom ñooy wëral seen bopp te nag kuy taamul sa bopp nag wax dëgg yàlla loo ci am rek mooy loolu. mu nekk lu yéeme. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Sarata même question. ñu mm-hmm. presque sëy léegi dafay sooxee day gaaw a tas. mu mel ni daal. Euh, c'est une ce qu'on appelle la crise de valeur dans la société sénégalaise valeur yi doon am ci sëy maanaam c'est devenu une tendance quoi waaw valeur bi yi doon am ci sëy bu njëkk mhm. léegi amatul quoi mhm. waaw waaw dëgg la euh, déjà comme ni ko Ngoné waxee euh, daanaka comme gars yi léegi euh, dañu am tendance daanaka damay naan sax slogan la léegi tendance c'est-à-dire maanaam c'est devenu répétitif donc c' est devenu une tendance maanaam euh, li nga xamante ni dañ koy faral di gis tout le temps dañ koy faral di gis tout le temps maanaam euh, léegi sëy dootul yàggati te luy tax loolu cause yi bëri na cause yi bëri na ndaxte am na ñi nga xamante comme ni mu ko waxee ngir alal ngir matériel hmm. ah, ngir yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ah, buñ ko sukkandikoo rek ah, di nga ko gis maanaam luy causer ay ay ay mariage yi nga xamante ni du yàgg donc loolu dañ maanaam mbëggeel lalatu ko daal voilà ak mbëggeel euh, manque d'amour ci hmm. ci relation yi ah ak ñi nga xamante ni itam euh, dañuy am tànneef ngir takk soxna mais seen euh, famille du duñ leen ko bàyyee hmm. maanaam duñ leen bàyyee ñu ñu tànnante seen xamante bu baax a baax loolu dañ cee faral di gis fii ci ci Sénégal euh, rawatina ñun Sénégal euh, sénégalais dañoo def am benn psychologique maanaam euh, bu ñu bëggee surtout wolof yi ñoom tout le temps dañuy bëgg wala pël yi dañuy bëgg tout le temps seeni mbokk donc loolu mun na indi benn cause de divorce ndaxte bu ñu xoolee tamit euh, bu ñu ñëwee ci suñu mbokku pël yi wala suñu mbokk mbokku olof yi da ngay gis ñuy euh, dañuy naan man sama doom duma ko may benn jàmbur wala duma ko mm-hmm. may beneen euh, coutume. beneen beneen beneen aada wala du ma ko may géwél wala du ma ko may du ma ko may tëgg. voilà benn instant day am benn problème de caste buñ ko xoolee luy li nga xamante ni sëy yi du yàgg waaye itam dañuy xool euh, li nga xamante ni moo nekk maanaam euh, gars yi dañuy naan man du ma mayee lii du ma mayee kii ndaxte bokkul ci suñu famille wala bokkuñu mm-hmm. xeet xam nga yooyu day indi benn conflit day indi benn problème ci suñu société bi donc moralement day jouer socialement day jouer donc. buñ ko xoolee rek benn instant day gaañ réew mi. mu nekk lu lu lu doy waar. Euh, alors euh, Ngone. Mm-hmm. Euh, tudd na ba wax affaire caste muy affaire tëgg. Mm-hmm. affaire géwél affaire gë géer. Mm-hmm. te boo xoolee même ci diine lislaam loolu amul. amul bu njëkk defe naa ni ak tey lu bare bari changé na. bu njëkk borom kër boo ñëwaan dugg ci këram bu ngeen bëggantee rek daf lay may léeg sax duñu ñu xaar sax bëggante waaye xale bu jigéen bi mhm. su la sa papa wala sa yaay joxoñee ci ab kër doomu diw rek mu neex mu naqari da ngay dem sëy ngir yàlla tax mhm. euh, mu mel ni euh, mhm. valeur yooyu ak repères yooyu dafa dafa dafa dëñ euh, Ngoné lan moo mm, waral lan nan lañ mën a expliquer kii tëgg la wala kii géer la alors que ñépp ñoo yem ci yàlla suñu borom. waa dëgg la Moustapha comme ni ñu koy waxee rek bu ñu waxee en parlant de maam rek. Mm. li maam doon dund. kon loolu ci ñoom maam la jógee. Mm. comme ñi nga xam ñoo naan tëgg. dañuy ñoom ci seen i mbokk la ñuy yem te boo ko xoolee tamit ñoom seen biir sax comme tamit ni leen ko géeri di defee. Mm-hmm. ñoom tamit léegi dañoo fas yéene yem ci seen bopp. di def dërëm gi génnul gaal gi macha allah te loolu yëpp si maam la jógee. parce que amul ci alxuraan. comme ni ñu koy waxee rek yàlla amul kii la wala këla na nga nekk jullit rek macha allah mais loolu dafa nekk loo xam ne lu day waar loo xam ne dañ koy dund surtout di xool ndax di am na wala amul waxuma la côté sax mi nga xam ne ay tëgg laa gi wala géer la de mais dañuy dem ba nga xam ne ne yow intere tey jii yow booy may sa doom sax da nga koy may si côté jigéen ñi de parents ñu góor ñi bu ñuy mayee seen doom seen doom bu takk jabar dañuy xool foo xam ne ndax mën nañ faa mën a am njaag weccit weccit di xool koo xam ne boo nekkee benn mankan kunkan bu mel ne man dóoroo fay woo yoroo liggéeyoo xëyoo gontoo dañ naan déedéet du ma may góone sama doom parce bu ma ko mayee hmm. tey du ma mën a teral yaayam du ñëw wala yaayam amul doole dafa am ci côté góor ñi am na ci côté jigéen ñi am na am saxul ñàkk saxul te góor ñu jigéen ñu bëri nag dañuy jaay sax seen doom yu góor ñi hmm. dañuy xool na xale bu jigéen boo xam ne ne mooy grande dame moo yëg ci avion yi di wàcc wala bureaucrate yor xaalis ah. boo xam ne intérêt lañ fay amee pour ñu mën a may seen doom mm-hmm. affaire bi nag yamatul ci jigéen ñi kase mm-hmm. mais dafa xuus nag ba ci góor ñi ak seen yaay mm-hmm. waaw loolu tam dafa am ba ci góor ñi waaw alors Sarata dégg nga li Ngoné wax alors ci li mu jot a pàcc yi mu jot a expliqué yëpp euh, lan moo ci war a wala moo war a lan moo ci war a nekk taxawaayu waajur yi moo xam ku ci góor ki wala ku ci jigéen maanaam parents yi lan moo ci seen rôle Moustapha tey comme ni ma ko waxee sama beneen émission parent yi tey ñooy tas. <coughs> ci naka. ci fan wu ne ndaxte da ngay gis tey euh, wala ñu jàppale xale yi pour ñu mën a sëy mais duñ leen jàppale dañ leen di seetaan. amaana sax ñu sëriñtu. amaana sax ñu yàq diggante ñaar ñi nga xamante dañoo bëggante te yàlla tax. amaana sax ci biir loolu noonu ah ku jigéen ki mun nañ koo euh, liggéey yàq ko. en fait mun na taxawaalu loolu dañ koy nemmeeku fii ci Sénégal am na jigéen yi nga xamante ni seen goro yi ñoo leen yàq yaxet liggéey leen ah ngir ñuy waaw ñuy taxawaalu <laughs> loolu de gis nañ ko du du jeex ak yeneen i mbir yi nga xamante ni mhm. ah ñu ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal mu doy waar doy waar kenn mënu la koo expliquer ni ko voilà parce que bëgguñu ko day fekk bëgguñu ndaw si c'est ça parce que ñoom li ñuy bëgg a dund mhm. léegi nag nit ñi jamono ji léegi moo changé <laughs> nit ñi góor ñi tollootuñu foo xam ne da ngay toog rek ñëw ne la may nañ la diw wala dara parce que jamono bi dafa changé mhm. technologie baa ngi fi yeneen ak yeneen xale yi dañ fiy nekk di fëlaale di def lu leen neex ku ci nekk takkoo jongoma ju la neex nga takk mhm. ñëw indi te maire dañuy dund jamonoy démb ba tey mhm. da nga yaakaar ne xale yi jigéen ñi ak ñu góor ñi mhm. da ngay dem toog ñu naan demal sa doomu nijaay wala demal sa doom bàjjan yooyu amatul xale yi dañuy génn fly bëggante nobante joxe seen xol ba mu neex leen ñu bëggante ñëw sëyi mais maire yi duñ nangu loolu parce que lu ñuy nangu mooy déedéet ki ma takkal taxawaalukat taxawaalukat kan lañ ko tuddee xale buy sol jiin wala xale buy sol mhm. décolleté wala jumbax aat moom lañ tuddee taxawaalukat mhm. loolu du taxawaalukat jamono bi moo ko laaj jamono yi musóor yeewu du musóoru takk sa dëgg fii def sër bu gàtt dem taxani jamono boobu nit ñi dañ koo dépassé esprit boobu lañ jiital ba tey te esprit boobu mhm. macha allah nit ñi weesu nañ ko est-ce que nekkul également euh, jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy si ci kër yi dañuy gis ni ñu bëree bëri bu ñu sëy see dañuy ñëw def seen goro bu jigéen moroom maanaam duñu ko jàpp goro duñu ko jàpp comme seen yaay ji ñu bàyyi ci kër gi dañ koy def comme wujju bu ñu nekkal ci kër gi. non oh, loolu du yoon. loolu dañu gis aussi indi na blocage yu bare bari. ci sëy am na goro yu sens de. am na goro yoo xam ne ne tubaarikàlla macha allah dañuy ja dañuy màtt ci suuf de bu ñu gisee seen doom tubaarikàlla macha allah jooy ne danga maa def lii wala danga maa def la la gis naa ko sama benn xarit bu koy dund boo xam ne ne bu xëyee tey ji lu ne lay wax sama xarit bi di ko xas ak nangam nga patati patata te or que lan moo waral loolu waaw ne ko naam nangam taan nga patati patata mhm. te lan moo indi loolu xale bi mu yar ci biir kër gi moom la bëgg a jël may ko nag ki nga xam ne mooy doomam doomam nanguwul loolu ah. parce que xale bi nga xam ne ne moom lañ yarandoo ci biir kër gi muy doomu nijaayam yaayam bëgg ko ko proposé pour may ko ko moom nanguwul loolu ah. lu tax nanguwu ko parce que da koy xool ku bëtu rak ah. léegi nag mairie la mooy seen problème suñu demee ne même takk ji keneen ñëw indi ko ci biir kër gi duñu supporter loolu sa jabar na mel ne urnul ay ni sa jabar na mën togg na mën fóot na mën paase na mën lu ne mais bëgg gisuñu loolu parce que bëgguñu ko rek bëgguñu ko mm. mairie buñ la bëggul bëgguñu la mm. boo leen doon defal jamaa wala di leen jox or dañ koy jël fas ne pat ñoom ki ñu bëgg rek la ñu te jamono ji nag moo taxeewul noonu mm-hmm. mais nag ni mu amee nag ci ci mairie noonu la amee ci jeej am na jeeg joo xam ne ay jeegu lan set lañu jéeg joo xam ne dañuy dugg si biir kër mm. fekk nday ak baay ak doom ñëpp juboo bëgguñu loolu dañuy jaxase kër la ñuy laaj te appartement du ñëpp ñoo am moyen parce que tamit dafa doy waar doo fekk nit ki sëy ba sëy fu dara nekkul jur ay doomam toog yor benn doom bu góor kase mu ñëw war a sonnoon démb war a ñëw toog teral teral ndeyam takk jabaram indi ko ci biir kër nga naan ko non papa petit yi patata xam nga xale yi dañu caprice mm. yàlla buñ la mën ci point non xam nga nekk fii di togg ak yooyu yeewu faja xam nga war a dem <laughs> war a def lii def ne xam nga xale yi am na ñu bari ñoo xam ne ay chocolat yooyu la ñuy incarné mm. dañuy bëgg a ñëw sëy si nit ki nag la boo koy dem ba di ko dugal ci yenn domaine yi waaye sa jëkkër bu day fayeeku deux cent mille francs par weer kooku tey mën na laa jëlal appartement deux cent mille lan ngeen di lekk lan ngeen di naan <coughs> tubaarikàlla macha allah kon nag booy teg nit ki dara na fekk ne nit ki poosam mën ko waaye am na ñoo xam ne tey ji yàlla may na leen possibilité bi bu ñu takkee seen jabar ñu wut seen appartement mais boobu bul dem fekk koo xam ne tey benn salaire deux cent mille la am nga bëgg koo imposer cheveux naturel yi tubaarikàlla macha allah ku amul deux cent mill de plus doo ko teg uh-huh. ah bëgg courant ndox loolu yëpp nga bëgg koo teg mais dañuy fekk nit koo xam ne lii la dooleem teg léegi nag xale bu góor bi tamit toujours nag ci seen ñàkk wax dëgg ak bëgg takk rek dinaa la utal appartement. foofu dinaa ci ñëw euh, foofu tegal sa loxo dinaa ci ñëw. kon ñu biisaat ba ci kanam alors euh, Sarata kanam ñu dellu si waat. Euh, mu mel ni aussi am na benn irresponsabilité bu am ci góor ñi. Uh-huh. nga indi sa soxla ci sa kër mu fekk fa sa papa sa yaay ak say frère kër gi amul benn problème mu fexe ba génne ci kër gi dem ut doo uh-huh. la appartement. musele kër gi ba yow ku góor ki dootoo defal dara say waajur. Uh-huh. foofu dafa mel ni. Euh, am na benn inconscience ak benn irresponsabilité ci ci ci côté góor ñi. waaw loolu comme ni nga ko waxee rek le mot revient rek mm-hmm. euh, mooy que ni irresponsabilité góor ñi góor danga nga nee naa leen góor dafa war a jël ay matuwaay mm-hmm. góor dafa war a responsable comme il faut mooy tax que ni kenn du la yab. Mm-hmm. yaa ngi dégg waxuma nga faral say yi waxuma nga faral sa côté maanaam sa jabar mais na nga nekk ci dëgg bi. da nga nekk si digg bi nga xamante ni euh, kenn du la xuuf kenn du la yóbbaale comme ça problème bu amee wala situation bu amee. di nga ko mën a gérer di ko mën a gérer à ta façon et à ta mm. donc nag loolu mooy responsabilité góor ndaxte nit ki léegi damay naan li tax sëy di gën a tas. ak ñàkk jàng sa ah, sa sa maanaam sa sa charia ñàkk jàng maanaam luy alxuraan karim. Ah waaw parce que góor ñi tey boo gisee sëy di tas. mais boo demee nga jàng alxuraan nga foog ne doo mën a gérer sa sa sa sa ménage mm. di nga ko mën a gérer bu baax a baax moo tax ñuy nemmeeku. ay mariage jeunes yi en parlant de alxuraan am na si góor ñoo xam ne tey jii ñoo wàccee nañu ay kaamil ñoo a jàng ñëpp. mais teewul bu ñu nekkee bu ñu nekkee ci biir kër gi. dañoo jéng rek dañoo jéng rek. dañuy jéng ma ma xam nañ li leen charia wax xam nañ li leen diina wax. waaye dañuy topp pareen saay seen bànneexu bakkan. ba seen jabar bu nee piip ñu ne piip. loolu am na dañuy wax seen yaay ba mu set ko ci place ndax seen jabar. waaw <laughs> waaw déglu ma ah, loolu am na euh, ngóone loolu am na mm-hmm. benn instant loolu am na mm-hmm. mais la plupart part parce que jeunes yi ñoo nekk di sëy di tas. Mhm. mag yi comme ni ngeen ko waxee mag yi ñu ci bëri ñoo ngi nekk seen ménage def nañ 40 ans d' expérience. Mhm. dans le ménage. Mhm. donc nag ñun bu ñuy wax dañuy waxanteeg maanaam jeunes yi. jeunes yi nga xamante dañoo bàyyi wàcc seen ànd. dem ci beneen ànd maanaam ñuy topp ci tubaab yi rek ndeysaan mm. ñu foog na nag ñoo ci nekk alors ah, que sëy ñoom ñoom ci tubaab yi la ñuy roy waaw tubaab na ni ñuy sëy waaye nag ah, saarata bu nekk ak la cay xew <laughs> comme li ma waxoon benn waay nag eh, dañoo a roy ci euh, mm. euh, maam maam Fawade Wade Wele ak nu mu tuddee maam ma ne ko ndax est-ce que ñoom maam Mor Anta nañ ba tey uh-huh. amatul ñoom amatuñu parce que góor ñi mm-hmm. ci ñoom maam Jaara Buso est-ce que tamit ñoom Mamor Anta Sali suñu maam ñu baax ñu mel na ñoom est-ce que amati nañ. amatul amatul góor ñi fu mu toll ko war a wax xaaj bi yëpp ay couleur de jupon lañ. léegi voilà foofu laa bëggoon ñëw. xaaj bi yëpp ah. dañuy takk seen jabar mun a jekk keroog bu muy sëy si macha allah ay ongolam tool yi ay xefam tàcc. Mhm. tubaarikàlla macha allah gerte ay sëbaam naaw. tubaarikàlla nga sëy ci biir kër gi ñu naan la non c'est que man sama jabar lu kii da ngay bale di fóot ñu jël la def la. ngay wër di fóot ba ku la romb ku jéggi sa ndox doo ko naan am na fi mm. waaye am na góor ñoo xam ne ci biir góor ñi bu ñu la takkee dañ lay jël mettre la en valeur waaye dañ lay jël nag buñ la toroxalee mm. yàlla boo am benn doom nag wala ñaari joon ñu teg la fa naag mm. na la mba ca banque ba di wër ci xale di ka la ngaatu est-ce que loolu tamit neex na ci xel li ma la wax li laay ñaay baax ba muy neex comme góone li ma la wax li ma ne la am na ñi nga xam ne nit ñi yamuñu ah. góone nit ñi yamuñu xel yi yamul mm-hmm. xol yi yamul mm-hmm. donc ngoone boo amee benn nit bi nga xamante ni jàngul alxuraan même bu dee sax tamit ah euh, am na ñi nga xamante ni jàng nañ alxuraan te mais lan a maanaam xam nga boo jàngee alxuraan yenn yi ko jomb def ah déet na ñuy xam ne dañuy jàng ba ne ar laa la sama genre la ñuy yem ak lu ñu gérer ko ba ko léegi ñu déglu ko waaw da ngeen di ndax loo ah, gis ndax loo gis am na Euh, ñaar la ci àdduna hmm. Hmm. ñaari mbir moo am ci àdduna hmm. daa am ñu baax am ñu bon am lu baax am lu bon donc nag bu ñuy référé wu dañuy xool de manière général yaa ngi comprendre donc nag nit ki bul nee lii am na rek non lool kese moo am loolu rek ngay gis day am benn contrepartie bi nga xamante ni war nga ci gëstu war nga ko xoolaat faire la part des choses loolu la ñuy naan analyse yaa ngi comprendre donc nag boo analyser ñaari parti yi maanaam lu ma lay wax boo gisee ma ma ma ma tënku ci côté alxuraan bi damaa gis jeunes yu bëree bëri ñu seen diine. commencé ko ci maanaam bu ñu jàngee seen diine dina leen jàppale ci lu bëree bëri dina ci lu bëree bëri. ndax ci ménage tamit boo nekkee ci ménage mais am na jeunes yi nga xamante ne xamuñu sax seen ménage luñ koy luñ koy maanaam responsabilité bu ci comme il le faut. Mm-hmm. xamuñu ni ñuy doxee seen responsable mhm. mais bu fekkoon ni jàng nañ tuuti alxuraan au moins dinañ mën a gérer seen ménage mhm. mais beneen partie bi am na ñi nga xam ne jàng nañ alxuraan men defuñu lenn lu ci diine Sarata maa ngi ñëw ci yow defuñu lenn lu euh, diine Sarata aussi dafa mel ni li mu wax aussi dëgg la <laughs> li mu wax dafa am solo parce que xam nga ñàkk diine mhm. euh, dafa am solo diine dana tax ci biir ménage ci biir sëy que góor ki du mën a dem di mooy dem di def li nga xam ni yàlla suñu borom santaanewu ko mais ku jigéen ku aussi du mën a dem di mooy mm-hmm. ci biir sëy euh, bi parce que ma dollil la sa comme yàlla moom mooy moom ni ko teree góor ñi rek noonu la ko teree jigéen ma dollil la mu également ku nekk di nga euh, xool li nga xam ni moom la la suñu borom sant donte nit mënul motoon lépp loolu aussi defe naa Moustapha ma dolli la am na ñi nga xamante ne seen jabar yi sax ñoo leen di jàngal mm. <laughs> alxuraan moo leen di jàngal lan la yàlla wax ak li yonent bi wax mënuñu la koo ba parce que xamuñu ko ok ku xamul dara nooy defee dara léegi daañu rebondir Sarata daañu ñëw léegi ngoone waaw baax na comme ni ma comme ni ko Sarata waxee rek ñu bëri tamit ñàkk xam seen diine la mais comme bu njëkk ba tamit comme sëy ñu koy takk pourquoi pas jabar ji war a toog mm. wala jëkkër ji war a toog yow ñu ne ku góor gi ah, ah. yow lii moo la war sa digganteeg sa jabar mhm. wax tamit ki nga xam ne mooy ku jigéen ki lii moo la war sa digganteeg sa jabar mhm. mais mooy boobu tey da xool tey jabar ji su génnoon tey dem ama ama ji far dëkk bi toj mm-hmm. dañ naan jëkkër jabar jaa ngi nii am na jëkkër am na far mm-hmm. wala jabaru diw jaar na nii patati patata mais ku góor ki pourquoi mu takk la teg la fee ci biir kër ne la ne la ba ca banque ba yow ku jigéen ki yow yaay esclavage mm-hmm. yaay esclave bi nit ñi dañoo weesu jamonoy esclavage da ngay toog yaay bale yaay raxas sañoo ŋaang yow daal sa jëkkër buy génn sa amul droit tàggu la moom mooy dem taxawaal bu tayee mu doxaan mbindaan bi ci kër bu gannaaw subaa ñu doxaat ca xale ba ca koñ ba mm. soo waxee ñu naan la non da ngay ñëw yow yaay sëy mais pourtant ku jigéen ki bu génnoon tey jii ñu ne gis nañ ko mu taxaw ak diw naa dëkk bi toj da fase sax xaj na ci da lay fase góor yi nga xamante ni ma dolli la ci dañoo égoïste mm-hmm. ci seen jabar yi dañoo égoïste ci naka góor yow naka nga mënee am sa jabar mm-hmm. mais yéene woo ko jàmm mm-hmm. se le c'est le c'est maanaam maanaam loolu ni bambara di ko waxee est-ce que loolu mën na nekk wala oh, nga gis ki nga bëgg ba pare takk ko indi ko ci kër gi ba pare yéene woo ko jàmm waaye waaye Moustapha ci naka Moustapha ci naka loolu leeral boobu laa lay indi waaw comme ni ko ngóone waxee xam nga sànq moo ngi doon ne mm. seen jabar yi dañ leen téye comme ay mbalit maanaam téye comme esclave ñëwal bi naka nga a naka nga mën a ba takk ko nga am na ñi nga xamante dañuy takk nii rek comme ça parce que diine moo ko wax euh, comme ça am na ñoo xam ne ne gëmuñu lu ñuy def naa takk nii rek ndax am naa am naa am naa jabar parce que na ñu wax ne tollu nga ci âge bi mm. tey tollu nga foo xam ne yow góor mm. soo amul jabar pareen saay dinañ la dëkkal foo xam ne waroo fa dëkk naan waaw moom lu muy xool ndax ngeen boowul galaas <laughs> nangam ak nangam <laughs> wax la guro moo maanaam wax la wax boo xam ne <laughs> léegi pour loolu déglu rek comme pour loolu mën nga tax nga takk jabar ne comme maanaam plaisir u takk naa jabar oh. am naa jabar léegi boo ko defee rek pare nga léegi nag ki nga takk nag moom ngay jël teg ko ci biir kër ga nelam ba ca banque ba léegi ku ma continuer yow say waaw di di rek am naa jabar caaxaan bi dafa am euh, mais tamit damay duggaat nag ci jeeg lu neex doy parce que ñi ngi may signaler que euh, waxtu bi jot na kon euh, Ngone ma bàyyi la nga daaneel nga nga nga tàggoo euh, après ñu jox Sarata. waaw macha allah <laughs> waaw dama bëggoon wax na rek comme dafa am loo xam ne tamit ci jigéen ñi la. jigéen ñu bari tam dañ ci am part de responsabilité ndax yow li nga wan sa jëkkër ba mu takk la boo ko bàyyee rek kooku wan la ginnaaw parce que jéeg ju bari dañuy sëy si ci biir kër gi. Mm. bi ñuy sëy see bàyyeeku. yàlla bu ñu am benn doom bu ñu wàccee titre promotion la ñuy yendoo moom la ñuy fanaanoo moom la ñuy tëddee t-shirt ak yére t-shirt ak sër bu bokkul sëru vax ak t-shirt promotion moom la ñuy yendoo suba ba ngoon jot léegi nag tamit loolu tamit da cee joué ndax ki nga xam ne tamit moo war a ñëw fekkoon la nga nekk gongo wàcc nga war a présentable sa jëkkër fu mu la fekk kontaan boo am benn doom bàyyeeku soo ba ngoon jot loolu tamit daf cee joué jigéen ñu bëri tamit ñoom ñoo waral seen ah, jëkkër teg leen na la ba ca banque ba tamit waaw macha allah Moustapha Moustapha Fall <laughs> hmm? waaw du nuy mbokku téléspectateur yu TMS TV bi di kontaan ci yéen yéen ñëpp tamit kon ko tey moom premier plateau la hmm? maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah ak ay Aydara sama rakk ji ma bokkal plateau ak Moustapha suñu doyen ak caméraman yi ak Kara 221 maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax nag. alors Chérif ñu bàyyi la nga tàggoo. waa man Moustapha li may tàggatoo mooy que ni ku ci nekk. Hmm. Euh, sama wax mooy ñu jël suñu responsabilité. Hmm. ñun jigéen ñi ñun góor ñi yéen góor ñi na ngeen jël seen responsabilité. Hmm. où est problème. en fait boo takkee sa jabar na ko yor comme il faut jigéen ñi tamit bu ñu bàyyeeku nañ toppatoo seen jëkkër yi mm-hmm. itam topp seen ndigal mm-hmm. ba tax ni euh, suñu bu ñu amee mariage du du teel a tas en mm-hmm. fait kon nag bu ñu dara xuuf bu ñu dara yóbbaale ba ñuy def lii di mel donc nag loolu lay tàggatoo euh, jërëjëf euh, Sarata jërëjëf Ngone vraiment waxtaan bi am na solo lu neex tu xam naa ni ci yeneen i ay émission daañ ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo ak même sax ci côté diine bi ak euh, mm-hmm. ci suñu ustaas yi nga xam ni mm-hmm. euh, ñu ngi fii ci kër gi euh, mu nekkoon émission boo xam ni ñu ngi ko laloon ci wàllum sëyu démb ak tey amoon nañ mbégte vraiment ànd ak yéen sur la TMS TV alors di nuyu Saliou Samb mi nga xam ni moo doon réaliser émission bi di nuyu également suñu ñaari caméraman yi di Pape Diagne ak mbay Sall alors di nuyu Kara 221 amoon nañ mbégte eh, ci TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu làmboo njëriñ di leen di jox dig daje suba eh, même heure sur la TMS TV jërë ngeen jëf.